asalaamaaleykum wa rahmatullah ñuy sargal ñëpp di jaajëfal yéen ñi nga xamante ne yéen a safoo la 2STV ni ñu ko baaxoo di defee saa su nekk ci weeru koor bi balaa boobu may ziyaar ñëpp di baalu ñëpp ak di naan leen déwénati ñu def koon ko daaw fekke déwén di baaxantal seen émission célébrité et religion ñu ñëw tey seet si ko nga xamante ne jigéen la di mannequin ñu laaj ko tey lan mooy barkeeloom ci weeru koor bi Khadija na nga def maa ngi sant yàlla alhamdulilah di la nuyu euh, di baalu ñëpp ak di la baal ak di nuyu téléspectateur 2STV yëpp di la ñaan kooru jàmm. ñu ngi lay jaajëfal lu bëri Khadija dama buggoon xam tuuti ci sa liggéey en tant que jigéen ngay def mannequinat ak ni mu bëree ay danger yooyu noo koy dund. maa ngi koy dundee comme ñëpp lu dundee seen liggéey rek liggéey bu noble la man pour man liggéey boo xamante ne la boo ci defee lu baax rek gis si lu baax man loolu laa gis. ñu ngi ci weeru koor bi lan ngay wax say fans ak say an. te ñu ngi jàmm yàlla bu baax di julli euh, di woor normalement xam nga di jàng alxuraan bu baax aussi ni ñu ko mënee tamit waaw baax na ci lool. weeru ngëneel weeru ngëneel la waaw. ban saar nga ñu indil comme barkeeru ci weeru ko waa dama leen di indil na rek waaw. yow la ñuy déglu. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. qul yaa ayyuhal kaafiruuna laa abudu maa taabuduuna wala antum abiduna ma abudu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma abudu lakum diinukum walya diine sadaxallaahul azim ñu koy jaajëfal moom Khadija waaye dama la ci bëggoon laaj tuuti rek ci julli boo juumee ci julli naka nga koy gàggal waaw da ngay eh, nu mu tuddati xabla xabla ngay ba sujjóot bi ak baada salaat avant ak après moo ciy euh, mhm, baada mooy après Ah, kon nag euh, ñu ngi koy jaajëfal lu bari bari moom Khadija Diallo di mannequin nekk di bay waaram waaye gis ngeen ko yàqalu ko dara ci diineem nii moo nekkoon seen émission euh, célébrité et religion. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah rabil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. bokk yu ñu jàkkaar lool ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaare di balu àq ñëpp te di leen baal àq di ñaan yàlla yal na nu yàlla boo boole jéggal tabarakallahu ñu ñëw ak yéen nag kon ci seen émission bu mag bi e, tabarakallah fas yéen a ñëw ak yéen ci surat alquran yi nga xam te moom la e, mbokk mi jàng léegi e, saar wi ñuy wax xul yaa ayyuhal kaafiruun saar la boo xamante nii mi ngi wàcc màkka Eh, yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy tolloo ci digg wooteem bi yéefar yi dañu ko wax dañu ko jox benn proposition ñu ko daal gis nañ ni sonn nga ci sa woote bi te loo gëm la waaye ko mbokk nga xarit nga doom nga jorbaat nga eh, ba tey ci wàllu démocratie eh, kon kaay ñu def nii nanu ñëw jaamu su sunu boroom sa boroom bi ngay woote nanu ko jaamu une semaine bu nu jógee ci semaine boobu la euh, ñu ñëw jaamu ñun yàlla yi laataak Uzza ak Hubal sunu yàlla ñun tam nga jaamu ko wax jooju nag naqari lool sunu borom waaye Muhammad sallallahu alayhi wasallam la gënoon naqadi mu bëgga ton tontu sunu borom daal yebal Jibril ni ko xuul demal nga wax Muhammad xuul yow Jibril waxal Muhammad xuul yow Muhammad waxal yaa ayyuhal kaafiruuna ee eh, yéen yéefar yi laa aabudu maa taabuduuna du ma jaamu mukk te du ma mos a jaamu mukk maa taabuduuna li ngeen di jaamu xërëm yi ngeen nekk kuur yi ngeen di samp gën yi ngeen yett muy ay yu ngeen fi def wëlbatiku sukk ci kanamu yooyu te loolu mënul leen dara mënul yorub taw mënul jant bi yorul weer wi yorul guddeeg bëccëg yorul seen wërsëg xamul ci yéen dara yéen a ko fa def bu ngeen ko fa noppee def dootul doon dara ngeen egg ci suufe jikko ak ñàkk xam seen borom ba sukk ca kanamu loolu di ko sujjootal ak seeni sikkim yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jomm naa loolu ndax yii may sangam te lépp yàlla bind ci kaw suuf yaay sangu lu nekk ci kaw suuf kon laa aabudu du ma mos a jaam mukk maa taabudun la ngeen jaam wala antum aabiduna ma aabud te lànk ngeen ni du ngeen jaamu li may jaamu wala ana aabidun ma abattum man itam du ma jaam mukk li ngeen di jaamu kon kon lakkum dem leen diinukum ak seenu kéefër waliya ma dem may tam diini ak sama diine sadaqallahu asim kon saar wu ñu jàng léegi mooy suuratul kaafiruun kon yéefër yi nañu dem ci seenu kéefër jullit yi nañu dem ci seenu njulit kon li ñuy jàngee ci saar boobu mbokk yi mooy nu xam ne li yonent bi sallallahu alayhi doon wax ak waa Quraysh ba léegi day continuer bu fekkoon te ca Quraysh rek la yem ba léegi kon woon jar nit ñi di jàng ay histoire rek yu ñuy nettali nga di ca yéemu wala nga cay kontaan bu ca boo ca paree nekk ca la nga nekkoon waaye li ngay jàng yow itam da ngay xam ni ba léegi mi ngi continuer ndax lii leeral wax ji kat soo demee ci biir alquran sunu borom mi wax ni walan tarda ankal yahudu wala nasara xatta tatabia milatahum yéefar yi yahud yi nasraan yi yow Muhammad du ñu kontaan mukk ci yow ak jullit yi li feeg demuñu ba weñaar seen loxo ngeen comprendre seen diine di ànd ak ñoom ca la ñuy ànd ak ca lañu bëgg loo ñu la présenté seen diine nangu ko nga di ko nangu di ko soo xale ba ngay mujj rek aw tur rek ngay des ci diine te loolu ci lañu toll léegi lu luñ la wax ci diine rek nga ne ma garaawul waaye oustaz ñoo bëgg a garaawal nangam ah waaye sëriñ si ñoo bëgg garaawal waaye diina yombul waaye nekk ca lii nekk ci la bokk ci sàcc yi ba pare bokk ci topp yi ul islam nee nañ sol yére yére yu jot nga ne doo sol yooyu la yére usul buñ ne jigéen nañu toog nga ne jigéen ñi génn leen buñ ne bàyyi leen fecc nga ne jóg leen aar be culture bi lépp lu joxe rek nga daal fexe ba euh, rafetal ko ci sa xol ba nit ñi ñeme ko nga continuer da ngay dema dema dem mujj ñu ñëpp ñu nekk ay kéefar yal nañ ci yàlla musal kon nag saar wi mbokk mi loolu lañ ci doon jéem a jukki lu gàtt la nag lu tuuti la ci li saar wi ëmb lépp fa tabaarakallah